إبراهيم بين يازي ولي الله إبراهيم Ngamiyeti ma alalami donde alati ni ngauso jagorodo ha eltiri ami tokido minu deni shego barhamo. إياتي وبي أيب فاما أيمي أوتي ما ألا لميد ألا tini ngawso jagoroɗo ha elteri yammi tokkiɗo mi noddini cheikhu barhamo barhamo wala ila illa allah la ila illa allah ni Allah mutagima musufti ma burni ma yidima wala bana ma da barhamu huwa la ilaha illallah la ilaha illallah mawɗino himɓe haa faasi o famni ɓe wargo inyaasi moron tata qurbu makdumo gërëm mawlana cheikh ibrahim ñas radiallahu mu ne suñu buntab sëriñ mu ne muy mawlana baye ousmane dieng mu ne ñu koy ñaanal yàlla taw ak taysiir amin yaa rabbal alamin mu ne ñu ngi nuyu mbokk taalibe yëpp mu ne ñu ngi wax suñu sëriñ suñ soppe suñ wëlëre ci àndoo ci yàlla muy Baye Demba Sy mi doog a ngi lay tatagal di la wax bisimilah mu ne nga xam ne mu ne ndaw la loo xam ne sëriñ bi moo ko yebal fii mu ne kon ñu jàpp ne sëriñ bi moo teew mu ne muy borom xam-xam mu ne muy nit ku jub mu ne mu nekk nit ñi ku ku du déglu mu ne mu teewee ci barab bi mu ne kon fees na sëkk place bi mu ne matale na sëkk place bi mu ne ñu ngi ñaanal yàlla mu ne yàlla defal la tawféex si jotaay bi mu ne mi ngi wax mbokk taalibe yépp mu ne ñu ànd nekk sa ginnaaw mu ne comme nuñ doon nekkee ci ginnaaw sëriñ bi mu ne ñu xam ne yaa fi utu sëriñ bi kon yow yaa jëmmi sëriñ bi mu ne ñu ngi ñaanal yàlla bu baax mu ne di la mastawu coono tam mu ne ci xat-xat ak programme yi nekkoon ca kanam mu ne yëpp nga ajandi ngir jotaay gi mu ne ak déglu ndigal mu ne waddaay inna laahi bi is nii mu ne mbir yépp ci ndigal lay doxee mu ne sa ndigalu sëriñ nga ñëwee fii mu ne fii pàkk boo xam ne la mu ne miin na al usmaan yi mu ne miin na sëriñ bi mu ne ñu ngi tatagal bu baax mu ne di dalal si sa kër mu ne di la dalal si say biir njaboot mu ne fekk nga fi mbokk taalibe yu baax mu ne ci njiital Baye Cheikh juuf mu ne ku bëgg yàlla mu ne ku bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ku bëgg sëriñ bi mu ne mu jeex ci sëriñ bi te di ko liggéeyal mu ne kon sëriñ bi ñu ngi lay gërëm bu baax ci taxawaay bi mu ne sëriñ bi kum doyloo ba mu nekk suñ kanam mu ñëw ñun gisuñ kooku sëriñ bi lañ gis mu ne kon taxawaay sëriñ bi la ñuy gis ci yow mu ne ñuy ndokkeel suñ xarit di Seydi Baye Moussa mu ne mi ngi ziar ñi nga àndal ñëpp mu ne soppeem di Baye Ali mu ne mi ngi koy gis ci jotaay bi mu ne mboolem mbokk taalibe jóge ko Saalum ñëw fii si jotaay bi mu ne mi leen di ñaanal yàlla mu ne yàlla na yàlla fayanteeg ñoom ci lu baax mu ne Baye Moussa Diagne mii ca tàmbale ñoo doon ànd di ñëw fii mu ne su ñëwee fii pàkk bu miin la mu ne dëkk bu miin la mu ne ñu nga xam loolu tamit mu ne sëriñ bi kàddu yi rek lañ bëggoon yëkkati bëgguñ guddal mu ne ñu ngi gërëm bu baax di la sant di la ñaanal yàlla mu ne yàlla guddal fan yi maye wér yokku xam bi barkeel ko mu ne lii rek lañ buggoon dénkuwante ci ay kàddu alhamdulilahi rabbil alamin ñu wax jërëjëfee Baye Niass jërëjëfee jërëjëfee Baye Niass. jërëjëfee Baye Niass. jërëjëfee Baye jërëjëfee Baye Niass. nee na mu ngi leen di nuyu. yéen waa mbokki Farafeñe yëpp. ñu ngi leen di ziyaara di leen ndokkeel. di leen indil nuyoo suñu sëriñ. suñu sang. Mawlaaya Baye Ousmane Dieng ñu koy ñaanal yàlla yal na yàlla may ko wér yàlla yàggal ko fi ci barke Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu nee na mu ngi leen di nuyu te di leen ndokkeel beneen yoon di ci jiital muqaddam barkeel bii ñu fi fekk. sang bu mag biñ fi fekk nga xam ne liggéeykatu Mawlana Cheikh la di bàyyi Alpha mu ne bëri na fu muy wër ci senegaal bu demee dina fa gis ay jeexilitam ci taalibe yoo xam ne moom Baye Alpha mii mu ne kon kooku mu ngi liggéeyal pays bi ñu koy ndokkeel ci yitte boobu yal na yàlla dëgëral ko yal na yàlla sàmm ko yal na yàlla àggali mission mu ne comme ni ko waxee ci ndigalu sëriñ bi ci lañ fi ñëwee mu ne sëriñ nag dafay taxawee pay yàlla bi rek mu ne pay yàlla bi itam lu ko neex ci lay def tëjal lii mu ne yonentu yàlla Moussa bi mu waxee yàlla ne ko dama laa bëgg a gis yàlla def ne ko unzur ilal jabali xoolal ci montagne bi montagne boobu yàlla xolloo ko mooy tuuru Sina tuuru Sina boobu du moom rek moo fa nekkoon comme montagne waaye ca tuuri Siina foofu la tànn def fa tëjalli mu ne kon yàlla masi atoom moom lay demee waxtu wu nekk te coobareem gi nag waxtu wum ko feeñoo ci barab lii musal jàmbi mooy mu nangu ko waaye lii musal jàmbi mooy mu bañ a bàkku itam mu ne tuuri Siina bi yàlla defee ci moom tëjal lii jaalahu dakkan moom la yàlla wax dafa mokk rumbax waaye lu taxoon mu mokk moom tuuri Sina yaa koy xamee ci law anzalna hazal qur'an ala jabalin la ra'aytahu xaashi'an mutasaddi'an min xashyatillah waxtu wu ñu wàccee alqur'an ci montagne bi. danga ngay gis montagne bi di trembler. di yëngatu. ndax ragal yàlla. mu ne su fekkee ne alquran. melo la ci melo yàlla yi. alquran wàcc ci montagne. montagne bi di yëngatu. ndax ragal yàlla. mu ne lan nga xam nag ci montagne boo xam ne. jëmmi yàlla bi moo wàcc ci moom. moo tax jaaluhu dakkan mu ne sëriñ bi itam waxtu wum la tànnee ci biir mbooloo mi ne la kaay ma yónni la barab sàngam ar rasuulu bi qadril mursil ci maqaamaay ki ko yónni lay demee mu ne kon sëriñ bi moo def tajalli ci yow kon bul tiitaru bul ndamu lépp luñ la fa yëkkatee itam duut yow sëriñ bi la ndax moo def tajalli ci yow mu ne loolu nag ñu ngi ko ciy sant ñu ngi ko ciy gërëm lu tax loolu mun a daf ñoo yebal ci barab ngir suñ fa demee ñu jàngee fa ngir suñ fa demee ñu yokkoo fa ngir suñ fa demee ñu yëkkatikoo fa mu ne suñ la yebalee nag ci boobu xaal ci barab mu ne soo fa demee yow taalibe ngay demee ñal lay yëkkati nag ñoom sëriñ bi la ñuy gis ci yow waaye yow ma fa dem moom gisal sëriñ bi ci ñoom itam nga xam ne sëriñ bi moo am lum la bëgg a jàngal su boobaa doo ndamu mukk doo yëkkatiku mukk doo tiitaru mukk ndax tiitaru ci maqaamaay sëriñ dafay wàccee taalibe mu ne li la koy xamal xaala ifrit minal jindi آتيك به أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني لقوي أمين mu ne Ifrit loolu la waxoon jinne la woon bi Souleymane waxee kan moo indil Balxiis ak foto yam bi dafa ndamu moom mu ne ko man mii maa la koy indil. balaa ngay jóg fi nga toog balaa ngay jóg fi nga toog. am naa kattan bi te wóolu naa sama bopp itam. mu ne ndamu gim ndamu ci kanamam. ci lañ sël bu martabaam. ñu jox ko keneen. ana atika bii. qabla an yartadda ilayka tarfuka. man dinaa la ko indil. ci xefa xippi ci xefa xippi. nga xefa xippi. mu ne xam nga ne xefa xippi. moo gën a gaaw moo gën a gaaw fuuf. balaa ngay jóg ci sa place bi balaa ngay jóg ci sa place bi. lu tax loolu. lu parce que kooku ndam wut. tiitaru wut. te yàlla yegg na ko mbooleem maqaama yi. waaye lam am yëpp. waaye lam am yëpp. xam na ne du moom. ndax Souleymane moo ko ko jox. te mooy Asif ibnu Barxiya mu ne lan moo tax. Asif. Souleymane moo ko jàngal lan la ko jàngal ismullah al azam moo tax mu mën a indi balxiis ci xefa xippi mu ne xefa xippi mu ne borom xam-xam yi wax nañ ne mu ngi mel ni lumière. lumière rek lumière rek. moo gën a gaaw moo gën a gaaw xefa moo tax Asif. ci ismulal azam. ci la indee Balqis. te lam ko indee. te lam ko indee. Souleymane moo ko ko jàngal. moo tax tiitaruwut moom. kon nañ ci bàyyi xel. moo tax waxtu wu sëriñ bi yëkkatee taalibe bi. taalibe bu mu tiitaru. bu mu ndamu. bu mu du ci dara. moom du ci dara. madadu jàmbur lay madadu jàmbur lay demee. ki ki ko ci moom itam. mu ne ki ñu ko yónni ci moom itam. lépp lu mën na ko def na ndax mazharu ki ñu ci yow du moom waaye ka ko yónni moom lay demee mu ne loolu nag mooy si ñëw fii ñu leen di ndokkeel mooy ñaareel yoon fii sëriñ bi di ko yónni fii ñu leen di ñaanal yàlla mu ne te gis nañ itam teraanga bi teertu bi ak yitte bi yan na yàlla fante yéen ci lu baax ñu ngi lay ndokkeel Baye Alpha ñu ngi ndokkeel itam sa liyet bi nga àndal di bàyyi Cheikh tijaan Diouf mu ne di xaritam di wëllëreem ku ko sopp ko mu sopp ko ndax ku bëgg yàlla la ku bëgg xam-xam la gëstukat la waaye itam ku dëggu la lépp lu mu la wax dëgg ci moom kon ñu koy ndokkeel ci loolu yal na yàlla yokku jotaay bi itam yal na yàlla saxal ko yal yàlla dëgëral ko yokku mbooloo mi ci lu ndëbb ak ci lu feeñ yokk seeni wërsëg yokk seen xamxam xam sàmmal leen seen wilaaya ci barke Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu ñu ngi nuyu ñu ngi sant di gërëm suñu bi ñu fi fekke suñu wëllëre suñu àndoo ci yàlla di Baye Moussa Diagne bàyyi yitteem yëpp ñëw ànd ak yéen ci jotaay bii yal na yàlla fayante yéen ci lu baax ñu ngi nuyu itam suñu mbokk ci yàlla yiñ fi fekk di sëñ Ousmane Dieng mii Saalum mu ne am naat moo xam ne moo Baye Cheikh mii ñoo ànd ba dëkkam ñu defali ko programme mu ne bi mu yëgee mu ngi ñëw ci la wax ne dina fi ñëw ci jotaay bi mu ne même su ñëwul woon sax lu ko war la mu ñëw fi ndax seex Tidiane ndax Cheikh Tidiane demal na ko ay jotaayam kon ñu ngi koy ndokkeel di ndokkeel imaam mbay imaam Mbaye mii toog nii ci ginnaaw nekk borom xam-xam di jàngalekat waajuram bu góor njabootu Cerno Hasan Dam la radiyallahu anhu mu nekk ku baax ku am xam-xam koo xam ne ci joxe xam-xam rek mooy dundam yal na yàlla fanteeg moom ci lu baax ak Serigne Basirou Ndiaye moom itam moo toog nii sama ginnaaw moom seen dëkkandoo la mu ngi fii ci Sooma yal na yàlla dëgëral ko muy sëriñ Daara moom it di jàngale kati alxuraan ñu ngi nuyu mbokk taalibe yëpp ñu ngi nuyu waa kër gi itam xam ne loolu lañu waroon a jiital sax di nuyu suñu baay ji Cissé. yan na yàlla fayanteeg moom ci lu baax mu ne mu ngi guddal waaye mu ngi lay wax ne sëriñ bi mu ngi lay gërëm mu ngi lay sant mu ngi lay ñaanal yàlla te mu ngi lay fuglu itam waxtu wu nekk mu ne loolu moo nekkoon kàddu yi lépp lu ci jub madadu sëriñ bi la lépp lu ci jabut jubadi mu ne nañ xam ne ñun ñoo tilim waaye lu sell lañ yekk ci moom loo xam ne moom la waroon a indi mu ne bu sell dee rek kon ci ñun ñii la ñu ngi ñaan yàlla jotaay bii yal na yàlla àggali ko def ci ndam ci zahir ak ci baatin allahumma salli ala sayyidina muhammadin haqa qadri wa miqdaari lazim jërëjëfe Baye Niass daayiratul fadli kuñ fornome war ngay sant yàlla ñun lañ sigil gëstaloon sidi baram